te ñun Serigne Cheikhouna mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Cham mooy sunu buntu ci kër gi. di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér teg ci Serigne Hamidou mi nga xam ne it mooy sunu kilifa te liggéey bi ñu ànd ceeg moom muy soldaarab Serigne Touba. di ko doxee di ko waxe ba képp ko ko xam ci nga ko xam moom it ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd wér. muy toftaloo noonu di toftaloo noonu di toftaloo noonu ba ci Serigne Cheikh mu tegal ñu ci loxob Cheikh mu Mountakha di sant bu baax it Cheikh Mouhamadul Amine Cheikh mi nga xam ne moo doon def waxtaan wu am solo wi wax dëgg yàlla de sëñ lemin yenneel na ma ab yan bu baax a baax ndax ndax leen fi jot a wax rek dafa mat sëkk ñun dañoo waroon a jël kàddu rek sant waaye dali dañ noo jox ndigal ñu koy jafe kon dañuy fas yéene jafe ndigal li ñu soññ sëriñ xaamil lañ jox ngir ñu ngir ñu yëkkati fi ay kàddu donte mënuñoo soññee waaye jiitu ngir ñuy mën a tàmbali sunu waxtaan comme niñ ko doon defee Serigne Cham nga xam ne mooy sunu wayjur ni ko sëñ Lamine mi waxe bi mu fi nekk te jógee gu fi mu fi jóge dafa bindoon ab leetar bari ca waxoon lool leetar ba it da caa nekkoon ne mboolem yéen sama njaboot képp ku ci julli ba nopp na jàng fukki xul huwa ak benn yéene ma ko ñu toog ku nekk nekk ci sab dog ñii di jàng kaamil ñii di wér wérdu ku nekk nekk ca la nga nekk noonu la ci daan nekkee ba fajar mu waaj jiite leen bu jullee mu yeewi leen ñu dem ci seen yitte ba guddeeti ba fi mu koy ba guddi gi mu koy mujj defe néeg bi mu daan naafilee mi ngi fii soriwut ci bëccëg demoon nañ fa siyaare ji ko bi mu ko defee ba noppi barab bi nga xamee ne fi la woon di waaj mu ngi fii ci biir kër gi mooy jumaa ji ci nañ fa ca suba fa la jógee ñëw basel basel, jàpp ba sell ba sel jublu penku wuy ji boromam ta Cheikh xam Khadir mo ne kon guddi gi nenut loolu la borom xam mujj wax ci kaddu guñ xam ba ca top moy seigne mohammed damel lim wax ne seigne chambay Cheikh mohammed mbay Al Kabir mo sakku ci borom xam mu tudde ko ko dëgg la ndax dano wax ne Cheikh Mouhamad Mbay Alkabir dafa toog ci ci defe naa ak garab teg lu mel nag njoowaan wayla illa ab campagne ay soxnaam toog ci wetam toog te xol lu mel ne gerte mu toog ab diir mel na koo xam ne dafa xaw a gëmmentu xaw a xappa-xappal soxna yi ne nañ jug nañ jug dem ngir may ko mu dallu biñ demee bay jug mu yëg leen ne leen déedéet bu leen jug li ma na ne luy xap-xapal day boroom saam moo ma dikkaloon dima laajoo turandoo waaye wax soxnaam sa nekkoon ca wetam ne ko yow mii la fi fekk kon yow laa koy jox fekk booba soxna si am góor mu tuddee ko borom saam mooy ab cëram mooy sëñ Saam Mbay mi nga xam ne ñëpp xam nañ ko sëñ Bas Moor it nee na sëñ Saam Mbay moo ko waxal ci nopp boppam ne ko borom saam lañ ma tuddee kon loolu rek firnde la ci. ak yenen ak yenen yo xamne manes nako na wax ci mom yo xamne du jeex du xaj way dafa guddé way dal ñoo leen di santat bu baax de leen gërëm de leen ñaanaan mboolem jéego yu ngeen dox ba ñew fi yalla bu mu neen te itam ni ngeen fi ñewé ran no ngi leen di ñaanal bu baax ak yokkute ba bu déwénee bu ngeen di ñew xamne fi ba ngeen fi jóge fa ngeen nekkon joggi ngeen fa manam ñi nga xamne dañuy bëgg garé auto garé auto ku nekk lo bëgg rek ngeen fas ko ndax am na fi waaw ñi bëgg ay soxna ak yooyu it ñu fas ko fi dal waaw yooyu yëpp rek man man naa kii ñi bëgg ay ñaareel ak yooyu it ñu fasale ko waaw comme comme li ma déggoon sëñ bi di ko wax fan yii rek naan ñi nga xam ne suñ borom daa def ñu nekk ci célibataire gi buñ mënta takk ñuy woor ba keroog ñu mën a takk ñu ngi ñaan nag bala déwén rek suñ borom jàpp ndale leen boolem xéewali loolu moo wax na kàddu gi si la moo ne yàlla may leen a seet kàddu si am la waaw. nee na ku ko ci bëgg kon incha allah ñoo ngi leen di sant bu baax daal xam naa dafa guddi moo tax mënuñoo guddal te mboolem li defe naa ne bu dee lu am jariñ képp leen fi indi li fi sëñ Lamine mi wax doy na sëkk ku ko dégg te jàpp ko da nga yàlla na suñu borom boole defal dégg ak topp tañ man koo jariñoo ba déwén nag jàmm incha allahu taala xam naa kon suñ mbokki xidmatul xadim yi rek xëy na ñoom lañ cee toftal ñoom ñu barkeel ci xasida yi bu ko defee sëñ bi sant bu ko defee liggéey bi day tàmbale ndax am na kuréel yu des incha allahu taala waaye loolu mooy li ci solo ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di leen jaajëfal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mu am solo balaa loolu ma santa rek sama bopp sëñ Lamine sekk mii euh, wax dëgg yàlla ci waxtaan waa am solo wi mu def ak kóllëre ji ni mu ko daggee ba ñëw. kon it kuréel yi ñoo teew teewlu tuuti rek xam ne waxtaan wi ci mbir mi la ndax bis boo ko wootee xam xamle borom màggal ga da cay jaadu moo tax ñu tijjee ko alxuraan bi ñëwee ci conférence bi muy siñ ngañ mii siñ lamin jël kàddu kon ñoom it ñoom xaside yi ñoom ñoo koy tëj waaye lépp ci biir programme bi la ñu am ak ko tuuti waaw kay loolu moom laa dem bëgg kii di sant siñ lamin bu baax a baax rek wax deug yalla waxtani lo fek lim wax ci Serigne samba Mbacké Ndoka xam nga man sax duma meuna tok diko wax ndax nit mënta tok di waxtan ci bayam day melne ko xamne da ngay dajale mbolo wala da nga bëgg nit ñu gëm la waye nit li am solo moy nit ki lo xamne ne da koo dund ak nit nga xamne man na xam ci mom luma xamul mom la ñewon tok diko ko wax te bu du don temps bi gatt nga xamne xeyna amna ñu wara jang jàng ñuy tàggoo nii bëgg dem ak yu jangul dama koy wax mu dem ba ca kanam ak kanam ndax daanaka waxtaan wu am solo wi mu fa doon def wax dëgg yàlla mën na ko kon dem ba ca kanam. li may wax ci Serigne Sam rek bi mu demee dama Serigne Touba bi Serigne Mamour Anta Sall génnee àdduna daf ne ku ko mën a way na ko way seriñ Touba bi borom Sam génnee àdduna da ne ku fa ku ko mën a way na ko way ba Serigne Fallou way ko Serigne Bara way ko Serigne Modou Moustapha way ko ca la Serigne Fallou doon ko ca la Serigne Bara doon ko waxee naan. yabitu yusalli suma yusbihu kaa'ima wa ma juuduhu illa kaamtaari waabili mooy jullikatu guddi ba muy borom saam ki nga xam ne da daan woor bëccëg yi daan guddi daan guddi yi mooy Mamor Jaara dem na sëriñ Fallou la doon wax rek nee na ku dul ku jur joxoon le sëriñ Mamor Jaara mi ma yar man Fallou Mbakke maa la raw saabaat ca kaw waxuma ngir ndamu damaa doonul ko ndaw kon nañu xam ne borom saam lii ñuy def sëñ Lamin lii mu def ak lii fi daayira yi def ku fi ñëw lu fi waay def daal joxe addiyaak ñaq ak lu waay def liggéey borom saam la ñi ngi sant ñëpp damay tënk kàdd yi rek ndax man Serigne Moustapha mooy def conférence bi sëriñ lamin moom laa ko waxoon ci guddi gi man bu ko defee damay sant rek loolu mooy kàddu yi waaye nañu xam ne képp ku yàlla séddee jox la Mamor jaara xamal ne am nga cër ci Soxna jaara habit la woon mooy borom xam-xam habit la woon mufti la woon bu ñëpp naw ku ne ci moom mu joon nga nekk nit ku raw na nañu xam ne borom saam jaamukatu yàlla la gor la garmi la toj na ay dëkk defar na ay nit te loolu ñëpp nan ci Serigne Touba seede ci moom lum seedewul ci kenn moo tax ñu ne ko toj nga misra toj nga mbàkke toj nga saam toj nga faneen cey sunu maam borom saam miskin yi ak faqiir yi ak ñun baayoo fu ñuy jëleeti tey ku leen di waajoo ak tumuranke ñeel na leen seen làquwaay moo xëy ne mes ba amutoon ab weerukaay jàq baa nga jaaxle fa nga jëm te ku fa ñëw dana la jox lay wërsëgam kon gileem gu mag ga sëf tey daan na bidiw ba daan leeral ñu baax ña fàq na ak a a suturaal nit ku xayib ak a mënoon a joxe xaalis sëhab kon nga nee li Mamoor Jaara lim jeexalu ko la ci moom xel mënta wax ba pekk kon nañu xam ne borom sam mooy mbiram Serigne Sam Mbàkke Ndookaan ak bi mu demee damaa jël sama xalima wax ne bismillaahi bismillaahi ma jug di way nag bismillaahi maa ngi jug di fas way te bëgg a way nag ay way yu gën gi way képp ku yàlla sédde way wayal ma sin saam jar na way jóori na daam moo dàqu tey na ñëpp mu jug kañ la ko dama ne bismillaahi maa ngi way te bëgg way nag ngeen gi way saa bay sëriñ saam dem na tey na ñëpp jug kañ ko képp ku yàlla sédde way wayal ma sin saam jar na way jóori na daam moo làqu tey na ñëpp jug kañ la ko li sëriñ di wax naan mu murid saadeex sëriñ Tuubaa nee na képp koo xam ne sag murid saadeex wér na man ngaa wat ne kon yonente bi sallallahu alayhi wasallam garanté na fukki nit yoo xam ne asaratu mubasara bil janna fukki nit yoo xam ne dinañ dem aljanna te ñi ngi fii di dund képp ku sëriñ Tuubaa seede ak murid saadeex loolu man ngaa taxaw wat sëriñ Sam ak murid saadeex am sëriñ Saaliw moo ko seede bu wér sëriñ Musi seede na ko te ak murid saadeex am li taxa mu koy takkaay boobu ñëw ko ci ji nee na bis sëriñ Saaliw daa wax waa danaa leen indil koo xam ne bu ñëwee na ngeen ko nangul ta topp ko ndax murit saadeex la loolu Serigne Saliou moo ko seede ci moom moo tax ma wax ko ne ko gëmoon na Serigne Touba bu wér moom Serigne Sam doyloo ko doyloo nag gu wér murit la saadeex la bu wér seex Saliou ke wax na ko lislaam bu doon kubbu ne jaay lislaam bu doon kubbu ne jaay sàmbakke ndooka am nga ñaay te lii ma wax duñ ne ma kaay ñu naan ma tuubi ko ma ñëw ñu naan ma tuubi ko Serigne Saliou donga bu mu am yaakaar ci moom nag ne ko am alxuraan ak xam-xam itam saama ma doy doxal joxal ma ko boobee la def kaaw sa san di bay ba yàlla may ko ndam lim yóbbu ci kaamil ñu dem ci seexu saali xam ma ko ba Serigne Saliou xëy woolu ko bis Serigne Saliou ñëw woolu ko bis jëndal ko kër jox ko mu gis na ko demal ndaw loo fa gis maa ko yebal mu mu wax la ko sëñ laa jaxate moo ñëwoon sëriñ bi moo ko yónni woon yàlla ak yeneen ak sëñ boom ñoo la gërëm ma wax la ko lii mooy sëriñ Sam nee naa sëriñ Sam a ngi ni ak waa këram jëf na ba buur yàlla gërëm wàcc na wàccaale na ndam moo tax ma ñu nag sant ko sëriñ Sam a ngi ak waa këram jëf na ba buur yàlla gërëm wàcc na wàccoog waa këram moo tax ma jug nag sant ko kon ñi ngi sant yàlla bu baax du sunu bàyyi dafa jëf liggéeyal Serigne Touba gëm Serigne Touba ba nga xam ne boolewu ko ak dara gis nga takki sa yii ñuy def am na xutba bu ci Serigne Touba def am na ñu bëree bëri maanaam day gis kenn day def dagaar kenn nangu kenn nangam ak nangam waaye moom bi Serigne Touba def dane man nan laay gisee lu Serigne Touba day moo koy def ci leneen benn xutba bi ngay jàng ñetti yoon sëy bi fasu ci la doon dox moom ci Serigne Touba la doon dox doxutoon ci loo xam ne lii suñu aada laag lii la ñuy def ak laa Serigne tubaa la gëmoon ci la doon dox gëm Serigne li Serigne Sali wax ne Sine saam noo ko waxee mooy ab cër ci Mamor Diarra mooy cëru Serigne Saliou ci Mamor Diarra jumaay Mbàkke Xewar ji dañ ko woo ay yoon ne ko mu ñëw jiite ko Serigne Abdou Khafour moo ko waxoon mu yabal ndaw yooyu ne leen dem leen ci Serigne Saliou wax ko ndaw yi bu ñu demee ci Serigne Saliou wax ko ko tontu maanaam déet noppi gu yàgg déet lay tekk Serigne Saliou tontuwu leen looloo tax demu jumaay ji Serigne Saliou génn na àddina 2007 2009 way juróom toog xalifa avant waajuram di toog xalifa muy Serigne Moustapha Biteye moo ko jox ndigal muy kilifa mu ñëw seet waaye moom ci Serigne Touba la doon dox kon loolu moom xoolul fi mu bokk cërub Serigne saaliw la Serigne Saliou mooy ab cëram ci Mbàkke Xewar di cër bu ko mat itam kon laalaa bu loolu laa bëggoon ñu seede ko Serigne Makhtar mu Serigne Abdoulahi Mbàkke borom dër bi wax na ma ne dafa ñëw siyaar ci si si saaliw Saliou nee bi mu ñëwee toog indi doomam ju mu ko doon jox Serigne Sall Mbàkke la tudd nee na am yeneeni dongo yu mu fa fekkoon yeneeni dongo yu mu fa daj daje ndooloon Sëñ Saaliw ñaanal ñooñu ni mu ko kii day bind ci bopp bi kii bind ci dënd bi kii bind feneen ku ne mu wax la daara juñ ko yóbbu sëñ Maxtaar ne ko ni Sëriñ Saaliw ne ko kii ki koy jël si mi ngi ñëw te booba sëñ Saam ñëwagul nis tuuti sëñ Saam ak si nuyu sëñ bi sëñ Saaliw wax sëñ Maxtaar ne ko kii laa loo doon wax nga xam ne xoolal sëñ Saaliw loolu loolu loolu sëñ bi kimtaan googu nga xam ne maam dongo bi nga koy indil ki mu ko war a jox buy ñëw sax day xam ne mi ngi ñëw joxe donga yëpp bàyyi ko ba mu ñëw mu ne ko kii laa koy booleel dane woon daaree ndokaa ku ma amul ci moom yaakaar du ma ko fa yóbbu moo tax ku fa nekk mënoo yem ak ku fa newul ña fa nekkoon ñëpp ci jaamu yàlla ci amu fit ci am ngor ci gëm ñëpp xam nañ ko ci ñoom nee na keroog bi bi mu ñëwee sin saaliw jox ko ko ba mu dem siñ maxtaar mooma nett nee na keroog sin saaliw daaneel na ko fa ab jël te loolu siñ jax jaxate bii ñëw tey sax bala maa si ci loolu daaneel siñ baara jaxate nee na dafa am benn dong boo xam ne daan na ko nettali nee na xam na tur te ndookaale nekkoon dongo bi dadaan toog di ko nettalil boppam ngir yéem gum yéem Serigne Saliou lin naan nitu yàlla wàlli wàlli mën naa toog fii nga nekk ci ginnaaw baas bii di ko woo du la mën a wal wàlli yu mën naa toog fii di ramu sëriñam bu nar a lab ca géej ga di nangu taalibeem bu faatu ba noppi lu ab taalibeem di def mu mën koo xam te fii lay toog kii du la mën a wuyu ci ginnaaw baas bii Serigne Saliou nag ñi nga xam ne lu tegu ci loxoom fuñ mën a nekk mi ngi dégg li ñu wax ku faatu mu jébbal la boromam ku nara la mu labante la ci ñooñu la doon dox. dafa am benn dongo boo xam ne ndooka nee na dafa am ndaw soo xam ne da doon waxtaan ak moom xëy na ci séeréer si dëkk ak yooyu nee na bi moo ko daan nettalil boppam moo tax du ma wax tur sax waaye kon ma wax nee na dafa am ndaw soo xam ne da nga xam ne du soxnaam xëy na am lu mu bëgg a sequt la seq ak moom lu lislaam tere. nee bi mu ko ko waxee ba joxante bis ci bis bi ci ngoon gi nga xam ne kenn du fa ñëw danoo joxante foo xam ne fa lan war a dem sin saaliw yónni woolu fii góor a jéy yónni ko ne ko demal ndookaa boo doon boo demee nga ne diw sangam mu ñëw wuyu si bin ñëwee wax ko donko boobu ne ko sin nee na diw sangam nee na nga ñëw wuyu si ko taxul moom mu yëg lu xew de ay baatin la moom dafa defee ne sëñ bi da koo soxla rek mu tombe mu ñëw wuyu si ko bi mu ñëwee sëñ bi nuyu ko muñ nee na téye ko ñetti fan bàyyiwaat ko dem waxu ko dara daan ne góor a jëm boo demee muy muy góor googu ndaw sam doon waxoon bëgg a seex ak moom nga jël ko yóbbul ma ko daaree lagan bañ ndaw sa séyee gisantewaat la te mi nga toog fii kon loolu lañ xam ne ki ñu gëm ñoom baatin li naan nag baatin xalam nga koy xamee yàlla xalam nga koy gëmee ku xalamul bu gëlëmee moo silmaxaal bëti xolam baatin xalam nga koy xamee yàlla xalam nga koy gëmee ku xalamul bu gëlëmee moo sil ba ti xolam loolu dama koy barkeeloo ci Serigne Saliou ndax it day sunu cër ñun ñoom moo ñu defal lépp ñun Serigne Saliou moo ñu defal lépp kon mënuñu koo ñàkk a tudd waxtaan wax ci moom tuuti ak lu mu gàtt donte kàddu sant la di sant ñëpp di gërëm ñëpp nee na Serigne Makhtar keroog Serigne Saliou nee na ko yow yaag Serigne Sam seen ñaari kël aljana yi ñooy taxaloo te loolu Serigne Touba lañ ko daan dégg te Serigne Makhtar moo ma ko wax ma ànd ak sama rak Saliou ndookatal booba nee na Serigne Saliou moo ne ko yàgg Serigne Sam seen ñaari kër aljana mooy taxaloo Serigne Saliou moo ko ko wax kon moom jëf na wàcc na am na ndam ñun ñoo ci des waxuñu lii nag ngir bëgg ay taalib moom doxutoon ci loolu Serigne Sam doxutoon ci ay taalibe ki mbooloo moom ci ay téere ki yooyu la doon dox taalifi téere xasiida liggéeyal sëriñ yob yii jamono ni moom nekku ci woon moo tax fa nekk de maa ngi ñaan ci barkeb Serigne Touba moo ko gënal fi mu jógee te loolu mën naa koo waat kon maa ngi sant ñëpp daayira taxaw na rabbina matlabu sifaay wa kaana xaqan góor ak jigéen képp ku fi ñëw maa ngi leen sant yéen ñëpp ci seen tur ci seen sant di sant Sëriñ lamin mii ci waxtaan wa am solo wi mu fi def di sant Sëriñ Moustapha kuréel yi ñoow ñëw Miftaahu Nasri ak bii war a nga xam ne ñoo war a jàng nu mu tudd xidmatul xadim ak Sëriñ am yi nga xam ne jigéen na moom moom Sëriñ am la moom moom Sëriñ am mu Sëriñ Daaru Salaam Sëriñ am Daaru Salaam lañ ko tuddee nee na ñoo bokk turandoo waaye man nag man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ ma tuddee man maag Sëriñ am ñoo bokk kon ñu tuddee waaw kay maa ngi moom ñoom man yonante bi sallallahu alayhi wa ñu bari nag dañuy defe ne moom lañ ma tuddee Serigne Am waaye man yonante bi sallallahu alayhi wa sallam lañ ma tuddee moom lañ ma tuddee moom lañ ma tuddee kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla nañ ko fekk at yu bari ci barkeb Serigne Touba jërë ngeen jëf